Euh, sur le foncier euh, président Bassirou Diomaye Faye moom moo euh, nu mu tudd les services des impôts et domaines dañoo arrêté lu woon les constructions sur la au niveau du de tout le littoral dakarois ñu def deux jours une semaine les constructions ont ont ont ont repris tey Ousmane Sonko génnewaat beneen circulaire ne dañuy suspendre lépp luy construction pour une durée de de deux mois au niveau du du du du littoral particulièrement au niveau du domaine euh, public maritime. waaw xam nga euh, même na comme ni ma koy waxee rek Sénégal commencé wul ak le président Bassirou Diomaye Faye Sénégal dafa am ay loi ak ay règlement mënoo xëy rek benn bés nga ne damay. Euh, arrêté ay construction damay d'abord tu as vu que bi mu amee am na benn levée de lii boo xamante ni ay nit lañ ñoo xamante ni de manière très légale ñi ngi def seen activité légalement ay ndaw di ci liggéey di daan seen doole ay doomu aadama di am loo xamante ni ñu ngi ko ci def par rapport à ces constructions la mais bi mu amee gis nga exactement comme ni ma la ko waxee coolo yoo xamante ni demul fenn la preuve les constructions ont repris parce que jàpp naa ne bu fekkee ne yow dañ la jox réew nga ne di nga wutal ndaw ñi liggéey nga bëgg a ñëw commencé arrêté ay construction arrêter ay ci euh, ñoo xamante ni légalement c'est les services yi nga xamante ni ñoom ñoo composé cette administration la ñoo leen jox légalement seen pays loolu je pense que tegul fenn muy premièrement la preuve comme ni ma la ko waxee gis nga ne après les constructions ont repris aujourd'hui ñu demaat ba benn moment ñu ne am na commission ad hoc boo xamante ni euh, premier ministre moo ko créer pour que ñu arrêté deux mois saytu pour mën a mais il faut que ñu xam ne aussi réew mi dafa am ay lois ak ay règlements te gis nga une commission ad hoc mënul dem au-delà des lois et règlements de ce pays là gis nga la loi foncière dans ce pays président de la république bu mu ñëwee bul fàtte ne dafa créé woon commission de réforme foncière dénkoon ko une personnalité indépendante aujourd'hui je pense xam nga xam nga lan laa doon xaar tey ci le premier ministre Ousmane Sonko comme ñoom neenañ nañ dañoo bëgg rek jubal ñoom ay inspecteur des impôts lañ te ku ne xam na ne amoon nañ syndicat nit ñi doon leen jiiñ naan ñoom syndicat bu ñu lu ñu def rek jël nañ ci benn ay parcelles séddoo ko waaye tey ñu bëgg def commission ad ba pare premier ministre bi moom moo koy jiite waaw bu fekkee da bëgg lu leer doo def sa benn commission boo xam ne wut personnalité indépendant jox ko ne ko saytul ma waaye yow sa bopp nga ne yow yaa koy saytu loolu déjà c'est un problème donc je pense que il faudrait qu'on revienne à la raison ñu xam ne réew mi euh, ay wax du ko defar wax naa la ko léegi réew soo waxee ba ñu jox la ko wallaahi doo wax ba defar ko da nga am loo xam ne c'est des engagements que tu as pris vis-à-vis des Sénégalais dafa am loo xamante ni moom nga wax ci Sénégalais te ñun dañuy ñaan yàlla ñu réussir ko parce que jàpp naa ne Ousmane Sonko muy premier ministre li nga xam ne wax na ko ci réew mi yëpp je pense que bu ñu ko réaliser Sénégal mooy doon première puissance économique te ñun loolu la ñuy ñaan yàlla donc je pense que am na loo xamante ne nii jarul layam layami wala nekk di indi ay contre-feu wala ngay indi coow yoo xamante ne nii je pense que du am jeexital gis nga li am solo moom mooy réew mi. dafa am foo xam ne fa lañ ko fekkoon am fu ñu ko yóbbu ñoom ñu ñëw am fu ñu ko fekk parce que je pense que aujourd'hui ils sont en train de voir la réalité du pouvoir et je me félicite que tey li nga xamante ne ni tey président de la république commencé woon na ko ñoom gis nañ ne état munoo ñëw rek jël benn réew rek daal di koy dëpp indi leneen dafa am loo xamante ni moom moo fekk moom ngay continuer le BRT qui sera mise en service demain tey jii on va dire que c'est le président Bassirou Diomaye fay moom moo ko inauguré te ñëpp xam nañ kan moom moo ko tabax mais loolu mooy continuité état tey jii boo demee hôpital principal am na hôpital 600 lits boo xamante nii dans quelques mois le président Bassirou Diomaye Faye plagam moo fay nekk moo ko inauguré ñëpp xam nañ kan moom moo ko tabax tey jii énormément d'infrastructures ils ont été réalisés par le président sortant tey jii président Bassirou Diomaye Faye loolu moom mooy la continuité de l'État et je pense que gis nañ tey la réalité bi nga xamante ni mooy. la réalité mais mais mais réalité que loolu. dafa doon loo xamante ne nii bu ñu ñëwee. dafa doon loo xamante ne nii ça doit être salutaire et je pense que ci loolu la ñu war a nekk. bu ñu ñëwee gën ñuy nekk ci wax yoo xam ne euh, kër boo fa duggee da ngay def état des mais on a jamais dit. da ngay def état des lieux te dire. la république yéen ma dafa ànd ak liggéey. la ah? preuve ñun bi ñu yegsee waa déglu ma rek la preuve ñun quand on arrivé le 2 le 20 lañu wàññi dund bi tey dama nekk sama rajo sànq di ñëw. wàññi dund bi man am am amoon na manipulation. waaw déglu ma rek déglu ma. di gars yi yi non may ma may ma danga may bi amoon manipulation. bi gars yi di xeex Ablaye Wade commerçant yi dañoo lëkkaloo euh, dugg ci xeex bi jël pris yëpp yéegal ko président Macky Sall bi mu ñëwee enseignants yi dem reprendre cours yi te dañoo bañoon a jàngale. Euh, ñu jëlaat pris yi euh, yóbbuwaat ko à leur à à leur niveau normal après ñu ne wàññi nañu dund bi inflation bi 2011 la commencé ba 2012 après les élections ñu delloowaat prix euh, il faut relativiser ah. may mun a. il faut relativiser may mun a man li may wax dama koy teg ci ay sart yu leer dama ne on est arrivé le 2 le 20 ñu wàññi dund bi. ça c'est un ñoom waxoon nañ ne jëruñu sax ay promesse engagement lañu jël ne la premier chose bi ñu def mooy wàññi dund tey j'ai entendu le premier ministre Ousmane Sonko mu ne ci rajo de léegi nii te yàlla li muy def émission bi tey la léegi la am dégg nga ko man dégg naa mu ne ah dëkk bi de lu bari dañu koy jéggaani te bu fekkee ne da nekk ci dëkk di jéggaani lu bari li nga soxla wàññi dund bi day jafe dinañ ci waxtaan ak sénégalais yi 1960 ba tey li ñuy jéggaani lu ëpp bitim réew lañ koy jéggaani loolu mosu fee jóg muy benn beneen bi mooy engagement la ñu jël ci sénégalais yi neleen dañuy wàññi dund bi léegi tey ñu ñëw tey xam nga moo tax gis nga nit ñaanaluñu leen ñu échoué non du tout parce que egg guñu sax foofu parce que ñi ngi doog a commencé mais wax loo xamante nii mën nga ko ak jël engagement boo xam ne di nga ko war a respecter je pense que loolu bokk na ci li ñuy nawe njiit donc tey dañoo war a am courage toog devant les sénégalais wax leen exactement lan mooy la réalité mais tey jii commencé nañu. mais mais mais loolu day commencé nañu layam layam.